المصطفى نويت ما يجدد سنته فلا وإني أحمد للمصطفى Eh, dama defe ne dooy teggi ndax sa moroom ngay nuyoon teel damay wax man képp ku fi nekk jarul wax ci kaw na yéene rek nu ñaanal xalifa général di murit yàlla yàggal ko fi te wéral ko ak njabootu Serigne Touba gi di ñaan bu baax bu tedd bii nekk Cheikh Ibrahima Fati Serigne Abbas ak doomi borom daaw yépp ak sët leen fi te wéral leen bu loolu jàllee maa ngi di ci sama jaam bii nga xam sangam la la ñu di wax Serigne Abdou Koudous Diop dëkk Farba juddoo daaru yaroo daaru nekk loxo Cheikh Ibrahima Fati ndax nekkoon na loxo sama baay yamale woon Rakam ji nekkoon ci biir kër baayam xam nga ndax taarix la bokk na bu yàgg boo xam ne ci soxna Faati Busu si la bokk ak sëñ Cheikh si la diwaan te yaayam bokk ak sëñ Cheikh si la diwaan bu doon ko dundal ba mu des ci nit ñi du ko dundal di ñaanal sama rakk bi Cheikh Diwaan si la mi nga xam ne mooy sunu lu mu waat nga sëñ Cheikh si la diwaan di ko magam di kilifaam moom ab jaawam tudde ko bu toog moo jëloon kàddu léegi di nuyu Serigne Moustapha Sylla mi nga xam ne mooy jëwri ni xale yii ne ci biir kër gi te mu woon leen fi te it ci sama ndigal la delloo ci kër waaye su ma ko téye woon ba tey mi ngi rakk yi boor yëpp bàyyiwuma di ci nekk sama doomu bopp ji loolu tam di ko sant ndax nangu naa topp ci ginnaaw ay baayam li nga xam ne ñoo ko jiitu ci kër bu fekk ñu defar leen mu leen di fekk ñu nekk ay taalibe mu leen di roy fekk ñu tege ci yoon mu leen di kon man moom it maa koy sant ak leen koo xam ne ci kër gi la aju di leen wax it ne man day sama xol sedd na di lii ngeen def ndax lu xew yéen da ngeen ñëw def ko dem yibbi loolu moom def lu xew rek bu jotee ak moom di ci sama ginnaaw wala ci sama bopp bi loolu moom la yàlla def ci muy seen pas-pasu bopp ba léegi yàlla dimbali leen waaye lii ngeen ci dolli nag tey toog ba mu yàgg ngeen ne dañoo bëgg at mu jot bisub siyaar nangul naa leen ko gàtt na lool ndax lépp matul ay bis am na ay yitte yu bari it waaye damaa fomm lépp ngir lii day lu am solo lii ngeen def nag li tax ma am solo mooy yéen da ngeen ma bëgg kenn par kenn kenn ku ne waat naa ci Serigne yéene na ma loo xam bu ko yéene sa sëriñ yéene kenn xam murit amul murit bu yéene sëriñam lu ko man sëriñ Tuubaa du ma man tax waaye sëriñ Tuubaa bi mu bëggee dimbali damaa boole ay nit yu ma gëm te bëggam yéen oto bu rafet di dawal ñëw ni ma sëriñ bi oto baa hmm? ay million yi def ci poosam di xaar ma jóg su ma jógee mu ko aw lool rek lay soxla mu dem lii ngeen def foofu almet bi teg ko ci seen addiye ji moo ba ma xàmmee ba léegi ni wala ba ma xàmmee ni nekk nit tàmmali di nangu addiye te sëriñ bi defee ak bi mu fi nekkul loolu ngeen ma message wax loolu moo leen seen xol taalal ko bëggee xam am na loo xam ne bu ko defee ci yow ci ngay xool tool oto bee gaa rek séeguñu ko pick-up bi Thierno Samb mi moo ma ko jox addiya démb anam mu ngi nii toog te leer na ma ne leer na ma ne yéene na lu ko ñu ko toog ñëpp kenn ku ne am na yéene ji xam nga li gën a jafe ci àdduna bi. bés bu nopp waay. am ak am ku toll ni sëñ Cheikh bi la di wax. di mu jàmbaar. di mu amee teel bi di mu amee pas-pas. ni mu ragloo ni ko nit ñi wegee ni ñu ko bëggee. nga mënti ko nekk xale bu ndaw. te kenn mësu laa déggal dara. li ci dëkk bi te kenn xamaluma dara. lu ko waral. tey jëf li ñu war a jëf. ak kan jëmmi sëriñ Cheikh si la di waaye di nga xam ne yor nañu si jom. jom ci la nu yar te jom ci la lépp nag. daana wax ne borom daaru nee na jomay capital jomay ngor jomay lislaam jomay diine jomay nangu jomay bañ. nee lu baax lépp joma ko. kon sëñ Moussa Ba. sama ngërëm lii damaa bëgg a jël ko su fekkoon maa kon daay fab adduna rek lépp séddale leen ci ëppale morooma ndax doole yi mën naa ëppanti waaye waat naa ci Sëriñ Tuubaa yéen ñi toog seeni xol ak seen yéen i appaate wu ñaatal adduna rek kon ne man li ma ko defaloon it kon day billaahi wallaahi tallaahi du ma soxla gudd du ma soxla dal du ma soxla lekk du ma soxla naan ndax li ma ko liggéeyee li muy tuuti tuuti lim ma ci faye kenn waaye lim ma defal dafa mel ni defuma ci dara ci yooyu ma wax ndax lii ngeen ma nangul day sama baax baaxul suñu seex si ya, la diwaan ngeen ma toppe moom ngeen ma yaakaare moom ngeen ma jàppale moom ngeen may muñale ndax li ma dara teg li ma ñàkkee solaak li ma dofe wax nit nekk te damay wax nit ñi ne ko nit ñi ci la wala war ragal fañ di jooy naa fa yawa ci la na du man Ya, ëpp solo lépp ci la weddi war wax ni aw solo ndax su ñàkk solo bii moom man man de yaakaar naa yoonu mooy dëkk bi bu ñu doon tànn ku ci yées lañ ma jël teg. man moo tax sëriñ bi jaaxal ma yéen ak fi ma teg li ma ñàkkee solo ak fi ngeen ma teg moo tax sëriñ Tuubaa rek moo tax du ma yemaleeg sëriñ Tuubaa lu yàlla ndax lii moom sëriñ Tuubaa rek ko man am ay nit gënoo leen a ragal yàlla gënoo leen a maam lu ëppoo leen jom gënoo leen a bëgg lu baax. di fab sa seen bopp sa bopp teg fab la teg la ca kaw fab seen bopp teg ci suuf ku ko man loolu sëriñ bi ba jeex na kon nag tànku laa jublu ci liggéeyu sëriñ ma faat ci laay waat ci yàlla li ngeen bëgg balaa déwén yàlla na ngeen ko am sunnatu